Aïcha amis téléspectateurs African Channel bonsoir et bienvenue tey dañu seet si kii nga xamante ni moo di le talent de Kaolack ñu koy tuddee Modio ñu ngi ko seet si woon fii ci Guédiawaye précisément cité Aline Sow mi was a kid. Wasn't. Moyo. la Maria si na ma bii daal seen bi na ci Christine di préféré la du sa mérite prix kay la ma dëkk bii waga du ma gis maa ngi kin pi kaw paa bi mu ngi yàq ci dina soxla daxar gu yëg ñàkk hip hop kin pi koona yaa ko yàq final geng jooy ku nax amoo talent financement trophée haute moo la tax brise mortel nga laal ña am naa club mercato du maaruwaan laaj ma yor gën club brise wàcce na la fekk nga bagge toseeg dib debal jor bi waxta yokk niveau bandi moo la jik cuune gém bi la fista yaa ngi perte temps kulëree la taaj reptile mais du sa talent margulis bi dem na poubelle sama partant yoo fal na king le bu bandi da ngay du mercato du classe mais ñëpp lay fay galaaju galañ héritier ni 5 fay album bi pareegul promoteur say jomm na Oli laal seen wataatu maa pii jaamu kajoor sambar na phonétique ci empire terminator man la woon fiis ñu may la ko ñaari gaan air er sans virus empire ci avocat faux record tu es mort jaawale nga janj joor jaay dragon te saaka maam góor jes al tor ci lii joor woo musul dee kombe tey nga wéy ndeer laal nga la laak bit si ni nga duma daw geer bu dee réew nga may jaay pareel cooki fiis fekk la jéggi raay ruux lay chloroquine oot oh, si citizen maaj ñam nga maa leen muur ke si nga sul na kalpong ndax fa law ëpp jéggi woo di raay bin bin ba fàtte waa bun sentu ko njëkk yëmbal pass mbaaw gisaguñ duul classique du fi dewe ma alien ru jam bit saay fa la sick visa objectif kole motif game lay shift ci bit si ni jàq bu gànna jëkkëram fa nekk ndaw lay gis Bojo, kadamba sa KL waaye ñu xuus ci li nga xamante ni tey moo di thème bi mooy li nga xam ne moom la mu majoo doon teg mooy Terminator bi ñu il paraît que yaa ngi ci classe lu ci mel ni sept rappeurs su ma juumul ou bien six rappeurs yaa ngi ci classe ku ci mel ni BMJ di ci classe ku ci mel ni Ndobin dem nga ba Thiès génn nga Dakar nga dem ba Thiès classe ci chambre te su ma ne chambre neuf naa ci tudd ku mel ni Taaji Sine naa ci tudd ku mel ni avocat lu waral loolu. Sénégalais xamul ku dóor de mojo bi muy def compétition flop c'était en 2017 biñ koy éliminer kenn waxut kenn taxul ne mojo lu tax ñu éliminer ko parce que nangam déedéet mojo dem citizen ma ak jël ko ñu commencé gàddu gàddu rajo yi ratatatatatatatat nangam ak nangam ay xamul dara patati patata donc mu doon loo xamante ne nii man li may wax chaque jour rek pour mu leer ci nopp ñëpp man damay fayu damay defantoo tey képp ku ma xuri ku ma ko dinaa la xuri ku ma saaga nag tey jàppal ne allah kulli dinaa fayu su ma amee sa jot donc ñoom ñoo sànni woon ay lu yàgg la mun naa ne nag réponse bi moo ñëw en 2020 mais lu yàgg la c'était en 2017 ans ah. mais man noonu laa mel su ma amee lu ma métti aw ma sa jot parce que am na ci leneen lu ma nekk lu ma gën a ñor loolu laay concentré bu jeexee ma tourné defal la affaire looloo indi la moo terminator on va terminer que yàgg na ci man faw ma terminer ko avancé ci sama mercato yi parce que album li des bareetul du coup looloo waraloon Terminator ma xoos ñëpp ñoo ñëpp dama leen a tontu mais aw ma ci kenn loo xamante ni def nga ma loo xamante ne vraiment war na tax ma di la classe parce que niveau yi yamut niveau yi yamut on se dise la vérité niveau yi yamut fi ma jaar man jaaruñ ko ku ci nekk peut-être am nga ku lay buux Mojo kenn buuxu ko mu ñafe gagné représenté def ay affaire yu dóob donc tey bu ma ñëwee ne damay classe ñoo xamante ne nii tey mun naa ne seen biographie boo ko tàllalee doo ci gis di phrase yi mat kon donc man classe ma dama am lu ma leen doon corriger rek. Euh, voilà leeral rek continuer quoi. xam naa loolu dina leer ci kanam kanam. am tamit koo xamante ni yaa ngi ko ciy tudd du ma tudd. maa ngi kin pi kaw paa bi mu ngi yàq ci yaa ko yàq final geng jooy ku euh, bi mi ngi yàq jiis xam nga fi may waxee que paa bi mi ngi yàq jiis te ci ci biir son bi yaa ngi nangu ko ni moom révélation bi jël na ko. parce que nee nga ko même su fekkee ne jël la révélation bi yow moom nekkul sa meilleure révélation donc kan la papaam di yàq jiis man am na ku ma xam koo xamante ni papaam moo koy ménager kon soo ne paa mi ngi yàq jiis sama xel bi ci pin ki koona lay nekk waaw. mooy kaw ah voilà ma jàppale la si rek parce que comme li may wax rek loolu quoi ñun on assume à tout moment donc pourquoi ma wax loolu mooy euh, révélation la d'accord révélation la amul benn problème mais j'accepte pas que à ce que muy wax ne moom fok na ñëpp moo tax mu doon révélation donc man loolu laru accepté man vraiment au ma ak nit benn problème parce que taluma sax yooyu noonu à par la musique les études ma koñ parfois donc mun na doon révélation ñeneen mais pas Modio donc du coup ñu recadré waar rek teg affaire yi fi ñu ko war a mën a teg xamal ko ne ko carrément ñi ngay révélé yow li ñi ñuy révélé bu fa Modio nee doo feeñ kon donc yow doo suma révélation léegi nu paa bi yàqee gis bi. yàq jiis bi kay mooy wax dëgg yàlla tey buñ ne révélation kay man je dirais que moo xam ne que nekk na à la hauteur war na mën a génn ci beneen lancé dem. kon da nga bëgg a wax ni Kao Prip Dip révélation bi nga xam ne joxoon nañ ko ko daf ko démérité wala wala démérité ko. numéro bi la ñëw ma tontu ko. voilà merci <laughs> nee la na ko mérité ak na ko démérité je m'en li ma intéressé mooy du sama révélation man boo bokkut bokkuma ci ñu mu foog. yow en tant que Modio di représenter Rock Team K.O Prip yow mënul nekk sa révélation damay tontu de ok ñu ñu demaat nga ni ko hip hop Pinky Koona bi yaa ko yàq te Pinky Koona moom joxe na fa lim ama ah. K.O Prip wane na fa boppam. il paraît que dafay toj dafay bomb donc pourquoi nga ne ko hip hop bu Pink Corner yow yaa ko yàq. waaw mais moom li muy rab nice na waaye wax dëgg yàlla du sama kanam man kuy jaay rhyme yu nice kuy jaay technique kuy jaay woyu caay-caay ak mbind ak mën a rab ba ma fi fekkee toog Pinal Gang li mu doon rab di ko yëngal ni ngi naan hip hop bi hip bi. donc bu dee hip hop boobu noonu moo nekk euh, moo dee King Corner kon que cela veut dire que Pinal Gang mu ngi jooy Pinal Gang dafa représente bañ jox hip hop kin pi koona cër boo nekk kin pi koona rek nga ne Pinal donc bu ñu demee nag bañ am ay doute mën na munut moom la du moom c'est-à-dire que kon hip hop kin pi koona mu ngi jooy